rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waa groupe Mouhalim info seen mbokk Xadim Thiam ci kaddu gi ngir tënkal leen li fi sant ci xibaar ci kàllaamay Kocc Barma ci ànd ak seen sponsor officiel bii di Café Touba ak Bouchra tey jii talaata ñaari fan ci weeru mars atum 2021 dañu lu ñeel mbiri démb ki nga xamante ni kenn la ci avocat Ousmane Sonko yi di maître Khoureychi Ba moom daal dafa nekk ci otom rek ki nga xamante ni moom mooy commandant Mbengue woo ko ne ko nga jël convocation ba jëm ci Ousmane Sonko ndax dana ko bëgg a déglu àllarba ji ñu dëkkmal moom nag mu ne ko euh, mën naa ko jël yóbbu waaye nag mënu ko koo signé mënu def décharge bi lu dul aw ma ndigalam gannaaw bi la jël boobee convocation woo téléphone sax Ousmane Sonko di ko ko leeral Ousmane ne ko mën ngaa dëpp dem def décharge boobee convocation à ci daal di dellu fële ca section de recherche bu gendarmerie euh, gis commandant Mbengue daal di décharger boobee euh, convocation ci turu Ousmane Sonko. yéen a seen mbokk Khadim Thiam ci groupe bi di Mouhalim Info Ndeye Khady Ndiaye moom moom salon bi nga xam ne euh, moom la ñu wax suite beauté te coow ndox dox diggante Ousmane Sonko ak Adji saar yu ne fa la xewee tey jii moom dina wuy ji Mamadou Seck muy juge de huitième cabinet waaye daal. Euh, njort nañ ne buñ ko dégloo ba pare nag dana dem guddeeg bu njëkk daal dina ko fanaane fële ca campenal bu fekkee ne juge Modou Seck bi déglu na procureur ndax procureur moom loolu lay sàkku ca juge bi waaye li ñu koy toppee nag ne ñu daal mooy complicité de viol euh, incitation à la débauche et prostitution clandestine maanaam daal jàppale nit ngir mu violé benn xale bu jigéen ak it euh, encouragé ak mbon ak cagatu goo xamante ni da koy def ci loo amul kayit waaye daal ne ñu li ci jaaxal nit ñi daal mooy complicité de viol bi ñu boole ci mbir mi ndax nag ba fii ñu waxee yéen amul benn preuve preuve ne buy prouver ne Ousmane sonk moom mooy kii violé xale bii ñuy wax Adji Sarr kon nag bu ñu bindee ci mbir mi ne complicité de viol loole daal ak euh, juunoo gu méttee métti la par rapport ak fi mbir yi toll. maître El Hadj Diouf bokk ci kenn ci avocat yu xale bii di Adji Sarr moom daal tànki jàmm yi nga xamante ni ay kilifa diine ñu ngi koy dox moo xam ci diine l'islam wala sax ci jàngu bi. ñu ngi def ab collectif ci dox ay tànk jàmm demoon nañ ci ko Ousmane Sonko waaye nag bëggoon a daje ak kii xale bii di Adji Sarr waaye daal avocat bii di El Hadj Diouf nee na loolee du ci dal ñoom lànk nañoo janoo ak collectif boobee seen seen seen client bi daal di Adji Sarr daal lànk janoo ak collectif boobee ngir toog waxtaan ak ñoom moom moom El Hadj Diouf nee na euh, wàllu diina daal amul fii place dossier bi dossier yoon la ne diina dem te jàkk ja te jàngu ba te bàyyi yoon def liggéeyam buñ lu leer ci mbir mi nañu bàyyi yoon def liggéeyam te sax lii day néewal doole di gasaxal justice Sénégal yëkkati ab dossier ba mu toll fii nga naan nañ ci dox tànk jàmm moom loolu mooy faagaagal justice su Sénégal te it nee na mi ngi firndeel ba tey ne Adji Sarr mi moom bëggu la ndajeek fukki nit ak juróom-ñett yooyu nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci boobee membre muy membre collectif des religieux ngir daal doxoon tànk jàmm ci mbir mi ay maître El Hadj Diouf mi ngi dëggal ne xaleem bi wala bokk kiliyaanam kiliyaanam bii di di Adji Sarr bëggu la ak ñoo ñooy bokk ci boobee collectif le bâtonnier Pape Leyti Ndiaye kilifa la lool ci euh, ordre des bâtonniers des bateaux des bâtonniers Pape Leyti Ndiaye maître Pape Leyti Ndiaye moom mooy le bâtonnier de l'ordre des avocats daal kilifa la gu a mag la ci wàllum avocat yi fii ci réewum Sénégal moom nag mu ngi dànkaafu avocat yi nga xam te ñoom seq dossier bi dox diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr nee daal mbir yu bare bare ñu ngi ko ci nemmiku yoo xamante ni jaarul yoon àndut ak éthique déontologie waaye ñàkk a respecté règlement intérieur bi lu ko métti lool la mbir yu bare bëri daal lañ koy doxalee rawatina sorti média maam daal dem li nga xamante ni yenn avocat yi ñu ngi koy dem ci média yi wax daanaka mbir yoo xamante ni euh, jaaduwul woon bari na lool ci dossier bi léegi nag ñoom jëriñ ubbi ab ba responsable boo xamante ni daal laale nga ci lu ni mel ñu bu motee ay daan ay ci sam ñu teg la ay daan activist bii di Kédi Seba nee na kii nga xamante ni moo di Ousmane Sonko moom nag moo lalal boppam ndëgg sërëx moom daal coow li ko topp lépp tey jii moom mooy mooy ndey bill ji ndax mag mu toll ni moom kilifa gu toll ni moom ci wàllum politique ak daye bi mu am ci réew mi ci wàllum politique ak it xam ngi mu xam ne ñi mu jàmmaar lool seen itte lu dul faat ko politiquement kon nag waroon naa mën a bañ a daal ba di dem ci ay bërëb yoo xamante ni ay dañ fay marché ak ay ànduloo kenn amoo yenn témoin ba tax daal moom nee na moo ko Abdoulaye Wade ñoo bokk xalaat ci mbir mi mbirum naïveté dëgg ak ñakk euh, daal bàyyi xel sa bopp moo yóbbee Ousmane sonk coow lii nga xamante ni moom moo ko topp professeur Ngouda Mboup moom nag nee na euh, ak ak yelleef Ousmane Sonko daal ci mbir mi nga xam ne moom mooy dossier bii lu bare bari daal lañ ko salfaañee ndax bu fekkee ne ab député lan lañ ba lanal kiraayam wala ñu ko convoqué war nañ ko may juróom benn fan yoo xamante ni euh, day diisoo ki avocat am xool ba xam dafay euh, def appel ci acte bi wala déet waaye daal feek juróom benn fan yooyu weesul waruñu ko indil benn convocation tey it fekkee dafa def appel ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel am na lu toll ci benn weeru yàlla ngir càmbar boobee appel xanaa ludul gouvernement bi ci boppam wax na daal gaaw leen dañoo yàkkamti bu ko defee ñu def ko une semaine waaye daal lu dul loolu waruñu laa indil convocation lu dul juróom-benn fan yee dafa mat gannaaw bu ñu laalee sa mbalaanal kiiraay ba noppi Mouhalim Info. le collectif amical des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop ñoom ñooy xam ne seen naataangayu étudiants yi nga xamante ni tegoon nañu leen loxo te sécurité bu kudd ba maam daal ñuy yor wàllum sécurité ci kër gi di kudd ñoo leen tegoon loxo jébbalu leen waa commissariat bu Wakam waaye nag ñi nga xam ne ne ñooñee kat mujj na leen libéré ñoom collectif boobu it ñu ngi xam ne na loolu ñu nangu benn yoon benn sécurité wala benn police di teg loxo ay étudiants tegin koo xam ne gën daal goo xam ne euh, ci yaama neex la teg ak jëm ci wàllum politique bépp étudiant daal boo xam ne defoo dara lu des la war a toppee tey nekkuloo un danger pour pour pour pour la république loolu ñu nangu benn yoon ñu leen jàpp ci façon ngeen jàpp ñii waaye it ñu ngi ñaax seen mbokk étudiants yi nga xam dañuy yëngu ci wàllum politique ñu ne bërëb bii ñu jàngee muy Cheikh Anta Diop bërëbu jàngukaay la du bërëbu xeexukaay du bërëbu euh, ay jàmbarloo ci wàllum politique bépp violence daal wala bépp danger boo xamante ni ñu ngi mën naa bàyyi koo ci ab étudiant ñoom ñu ngi sàkku seen mbokk étudiants yi ñu moytu ko te it ñoom collectif bi ñi nga xam ne ñoom nekkuñu collectif boo xamante ni daal dañuy yëngu ci wàllum politique wala wàllum parparloo ñoom daal leen tax a jóg mooy jàppale étudiants yi seen naataango étudiants yi képp ci jafe-jafe yu mën a nekk waaye it ci soxla suñ mën a Boubacar Seye njiital Horizon sans frontières moom nag mooy woote ndimbal sénégalais yi rawatina sénégalais yi féete biti réew daal mu mën a faju ndax nag moom mii ginnaaw ba ñu ko libéré ci kaso bi ba léegi daal euh, problème mu wér-gu-yaram la am moom nag ñu ngi ko tegoon loxo ndax ay kadd yu mu yëkkati woon doon wax ne euh, doon wax ci xaalis boo xamante ni Union européenne daf ko joxoon Sénégal ngir mu xeex lu jëm ci wàllum immigration euh, clandestine ci lañ ko tegoon loxo waaye daal bañ ko génnee ba léegi daal. problème mu wér-gu-yaram la am ba loolu waral muy woote ndimbal jëm ci sénégalais yi rawatina sénégalais yi ne ci diaspora bi ngir mu mën a faju mbir mu doyee doyek waar mu xew fële ca université Gaston Berger bu nekk fële ca Saint-Louis benn jàngalekat daal bu fa nekk boo xamante ni fa lay jàngale aw turam mi ngi tàmbalee a mu sant Diagne moom daal la ñuy euh, jiiñ nag lu jëm ci wàllum agression sexuelle daal loolu jéem a fitnaal benn xale bu jigéen ngir sàkk ko te xale boobee kat la ca doy waar mooy fukki at ak benn rek la te moom professeur boobu mi ngi judd ci atum 1951 nekk magam jëmm daal nañu professeur boobu ma nga dëkk foofee ca Bango ca Bango la dëkk xale bu jigéen ba it ma nga dëkk ca gox bu ñuy wax Gandun Gandun daal la xale bu jigéen ba bay dëkk léegi nag professeur boobu actuellement ma nga garde à vue fii commissariat central bu Saint-Louis ñu ngi nag dina jàkkaarloog enquêteurs yi ca commis boobee commissariat balaa yàgg dara nag ngir daal nañu xam ba xam lii ñu koy jiiñ moo ko def wala def ko. Gurel Jaaje Gurel Ponak Gurel Bari ak Jalo bu Guum ay quartier ngi nii daal yoo xamante ni fan yi ñu génn ñoom daanaka benn nopp lañ doon nelawee jenn waaye daal yoo xamante ni mi ngi bàyyikoo fii ci Ndakaaru ci gox bu ñu wax ñaari tali tudd Fallou ture nekk am maçon ab ay atam toll ci fanweer ak benn moo fa nekkoon daal di di fa euh, def ñaaw tëf yu doy war da doon bàyyi ba guddi rek muy wër di dugg ci kër soxna yi moo xam xale wala mag sax ngir daal di leen jéem a sàkku bi tamit juróom nee ñu benn soxna soo xamante ni ay atam juróom fukk nekk magam jëm cinquante ans la soxna su see am lañ ko bett ca moom mu ko doon jéem daal raaya ka jéem a sàkku gannaaw bi la daw waaye nag mu joon rëcc ay fan yu néew rek coowal téléphone luñ sàcc ba taxoon pour tegoon ko loxo euh, bin koy enquête nag ci lañ seetal ne moom mii kat am na soxna yu bari fi ñëw doon porte plainte di wax daal waaju leen jéem a sàkku guddi euh, waaye nag mandarga yéen joxe woon ne ko kenn noonu la mel ba ñu xoolee Fallou Touré moomee kat daa dëppoo yu bëree ba daal da caa moom loolu war a nag way takk day woo soxna yu bëri yu porté woon plainte ngir ñu ñëw xool mooy ki loon doon jéem a sàkku waa wala déet ñu bëree bari nag bi ñu ñëwee xàmmee ko ne Fallou mii kat mooy ki leen doon jéem a sàkku yi nag fii ñu nekk fi ñu xëyee nii ngóor sosé muy fa sëñ Fallou Touré placé nañ ko sous mandat de pour viol attentat a la pudeur Seydou Diouf euh, responsable politique la ci Benno Bokk Yaakaar dëkk fële ci Rufisque ajjuma ji ñu weesu nag ginnaaw ba nga ne ci lañ doon lalli maraanal kiiraayu Ousmane Sonko ay ndaw dañ doon manifesté wu fële ci Tëngéej ba euh, sànni ca këram daal ay jungi sawara yoo xamante ni indi na ay takk-takk ca kër ga wala bokk yenn bërëb ca kër ga moom nag moom Seydou mii daal li mu wax mooy loole lépp nag moom ci ndoddal kii di Ousmane Sonko la koy teg ne daal Ousmane Sonko moom mooy responsable loolee xew këram 3 mars 2017 ci la ñu convoqué woon kii di Khalifa Sall 3 mars 2021 ci la ñu kii nga xamante moo di Ousmane Sonko ngir mu wuy ji le huitième euh, le juge du huitième cabinet du tribunal grande instance de Dakar nañu nag daal loolu moom tombe rek la wala daa am lu lëmasu ci boobee dat boobee date daal muy 3 mars date la boo xamante ni dafa mel nag jigul ëpp way opposant euh, ñi nga xamante ni ñoo jàmmaarloo ak Macky ndax le 3 mars 2017 bi ñu convoqué Khalifa Sall ci mbiru euh, ah, caisse d'avancement yi ñeel mairie de Dakar euh, mu wuyu ji woon waaye nag dañ caa teg ñetti fan rek wala ñeenti fan le 7 mars 2017 euh, ancien maire de Dakar booba ñu ko sous mandat de dépôt ko ko placé sous mandat de dépôt nag moom mooy le doyen des juges d'instruction te ñetti fan ci weeru mars atum 2021 ci la ñu convoqué kii di Ousmane Sonko moom mu war a ji le juge du huitième cabinet ñu ngi xool nag ba xam moom mii di Ousmane Sonko ay mbiram fan lay mujj teg loxo gi nga xam ne jàpp nañ ko kii di Birame Souleye Diop wala waral nag syndicat yi ne fële wala boog syndicaliste yi ne fële ca impôt et domaine génne communiqué yoo ñu ngi sàkku ci nu mu gën a gaawee ñu bàyyi seen natango bi nga xamante ni ku exemplaire la fukki at ak juróom a ngi nii yoo xamante ni mi ngi koy servir réewum fii ci anam goo xamante ni anam gu mucc ayib la ñëpp xam ne ne moom mii di Birame Souleye Diop am na sax fu mu féete ci wàllum politique waaye loolu yi mësut feeñ sax ci wàllu lëggéeyam te lëggéey correctement ñi nga xam te ni ay seefam lañu respecté na leen ñi nga xam te ni ñoom la féete kawit respecté na leen te it ku exemplaire la lool ci wàllu lëggéey teg loxo gi ñu ko teg loxo nag te dara waralu ko lu dul way politique mbiri politique ak it ak jaay doole ñu ngi sàkku ci nam gën a gaawee ñu bàyyi seen nattango bi nga xam te ni moo di Birame Souleye Diop yéen ngeen seen mbokk Khadim Thiam ci groupe bi di Mouhalim info numéro un da ngi dem ba Louga gax quartier bu ñu wax sance ba mbir mu doy doy waar moo fa am benn xale bu jigéen benn femme daal boo xamante ni magam jëmm la waaye nag handicapé la parce que waar mooy femme boobee way laago la waaye nag dañ ko jàpp muy jaay drogue bi di yamba ñetti kilo gra ñetti kilo gramme de yamba daal lañ ko fekkee ci biir néegam moom nag ay jamono ci ginnaaw a ngi nii yàgg loo xamante ni police ñu ngi ko doon may ay gët waaye daal euh, jàpp nañ ko fekk ko fi si néegam ak benn complice am mu yor ñetti kilogramme yàmbaak moom nag da doon dox ci diggante ñiy jaay en gros ak ñiy jaay en détail maanaam daal fournisseur la woon teg nañ ko loxo ba yóbbu ko garda bi yëbbal dossier bi nag juge d'instruction bi ñu nag bi méttiwul ah, mbir mu méttee métti mi ngi koy xaar ca Thiès bërëb bu ñuy wax kaat moom nag coolu réy réy fa am lu jëm ci wàllum accusation de viol daal benn borom saret dañuy jiiñ ne moom mooy sàkk benn xale bu jigéen bu ndaw a ndaw bu toll ci ñeenti at rek léegi nag gox ba boobee gox bu wóoradi la amul sécurité dara ndax bari na ay bâtiment yoo xamante ni àggagul te sax c'est pas la première fois mbir yu mel noonu di fa am. ñàkk gi nga xamante ni ñu ngi koy ñàkk askan wi muy vaccin anti Covid bi fii ci réew mi liñ ko nemmi ko daal mooy ak kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax vaccin bi bañ ko dooree ba léegi VIP yi ñi nga xam ne dañoo am am daraja lool am doon kilifa ci réew mi daal. ak ñi nga xam te ne ñoom ñooy ay militants wu APR ñoom wu ñoom daal la ñuy gën a ñàkk te boobu jamono amoon nañu ko yelloo lool ñoo xamante ni ñu ngi toog ba léegi mënu ñu jot ci ñàkk yi bokk na ci li ñuy wax ñu personne âgée ñi nga xamante ni daal seen i at dafa dafa dafa bari ak it ñi nga xamante ni dañuy sooxaale yenn doomu jàngoro yi sukkandikoo ci journal bi di enquête moom nee na sax ca Médina am na ci benn femme boo xamante ni responsable politique APR la waaye daal mobiliser la def ay association yu koy jàppale ci wàllum politique ngir ñu bind seen i membre ngir ñu ñàkk leen te boobee jamono nag ñi nga xamante ni ñu ngi woyalee li fi mel ay feebaru réñook ay yenn feebar yi daal ñu ngi def seen kéemtalaay kattan waaye mun ñoo fexe ba jot ci yooyu ñàkk ca Jurbel it daanaka lu ni mel rek lañ fa nemmiku. ay réew a ngi nii yoo xam ne ñoom deux cent mille doses de vaccin bii nga xam ne moo bàyyi ko fële ci réewum Chine ñoom dañ leen ko may gratuitement dañ leen ko may bokk na ci réew yooyu Algérie Guinée équatoriale Égypte ak Zimbabwe. lu wuteeg lool nag réew Sénégal mi ne ñoom seen deux cent mille doses de vaccin yi dal leen koo jaay te la ca doy waar ba yéeme ca mooy kii nga xamante ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ di ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram bindoon na ca Twitter am wax ne réew Chine dañu may deux cent mille doses de vaccin waaye daal ay fan yu néew mu daal di koy dindi wax ne sax dañu koy jaay ci njëggu toll ci yaari milliards ak ñaari téeméeri millions mu nekk mbir mu doy waar moo xam ne daal daf ñuy fàttali mbirum estate bële ñuy wax euh, euh, l'arène nationale dañ ko defoon ko fële ca Pikine te réewum Sénégal boo xam ne dañu ko jaay lu toll ci fanweeri milliards fekk ne yaay réewum Chine daf ñu ko may Mouhalim Info. ñu door xibaar yi biti réew yi seen groupe bi di Mouhalim Info numéro un dañu dem ba fële ca Zimbabwe ki nga xamante ni moom mooy mu Mohadi vice président réew ma la moom nag dafa tekki ndombal tànkam. démb daal ci altine ji la waa ministère de l'information def ci seen compte Twitter ne kii kat démissionné na li ko waral nag mooy coow daal la ko topp loo xamante ni lu jëm ci wàllum harcèlement sexuel la am daal di sonal jigéen di ko woo di ko fitnaal te dara waral ko lu bëgg koo séq ak moom loolee mooy harcèlement sexuel loolu nag lañ koy jiñ ndax benn audio wala bokk audio yu bari yoo xamante ni ñu ngi daw ci euh, réseaux ci réew moom yi ak ci yenn ci médias yi di wane ne kat Kembo Mouhadi mii doon sonal ay jigéen ngir daal bëgg a ñoom dara te kenn ci yooyu jigéen sax euh, ku muy liggéeya ndool la loola war nag moom nee na mu tekki ndombal tànkam ngir mën a daal concentré wu ci coow lii nga xam ne moo ko topp te moom coow loolee kat ay complot ak i labaj daal la ko teg ak i euh, ay noonam yu bëgg a yàq dërëm waaye moom laale wut ci lu ni mel ñuy fàttali nag ne moom mii mas na fay nekk ministre yi nga xam ne Robert Mugabe moom moo yoroon réew ma waaye it magam ndax ay mu ngi toll ci 71 ans juróom-ñaar fukki at ak benn juróom-ñaar fukki at benn waaw moom la am waaye daal tekki na ndambal tànkam ngir mën a daal jublu ci mbir mi ba nga xam ne moom lañ koy jiiñ te mu jàpp ne moom laalewu ci taqewu ci Mouhalim Info journaliste yi di Reporters sans frontières ñoom nga tey jii ci talaata ji ñaari fan ci weeru mars bi xam nañ ne dañu porte benn dañu porté plainte dañu déposé benn plainte euh, fële ci réewum Allemagne contre kii nga xamante ni moom mooy di euh, Mohammed Ben Salman ñoom daal li ñu koy jiiñ mooy crime contre l'humanité ndax faat gi nga xamante ni faat na ko seen natango bi di Kamal Khashoggi ak it lu ëpp ay fanweeri journaliste yoo xamante ne moo leen denc ci kaso yi foofee ci royaume d'Arabie saoudite loolu daal moo leen leen naqari ba ne ñu dinañ déposer plainte auprès du procureur général de la cour fédérale de justice bu Karlsruhe Struhe fële ca réewum Allemagne ndax nañ ñoom cour boobee kat euh, na pour intervenir ci euh, crimes internationaux yi. dañuy dem ba réewum Nigéria ci dëkk bi ñuy wax Dikwa démb nekk fële ci bët gànnaaru réew ma démb ay jihadistes yoo xamante ni ñoom kuréel gii di ISWAP. nga xam ne benn branche la nekk ci Boko Haram te affilié wu ci état islamique ñoom nag ñoo songoon dëkk ba dem ci guddi waaye daal benn base militaire bañ songoon doon jéem a indil fitna militaire yi ak waa ñu ñu ñoo ni waa ONU la ñuy liggéeyal loolu nag ni nga mujj sotti ndax militaire ñoo génn fippu woote it wàllu naa daal ba ay ndimbal ñëwee wàllu si leen it la rebelle yooyu mujj daw réew Maroc ñoom kat dafa mel ni seen digganteeg réew mi di Allemagne nag am nay jafe-jafe ñoom daal li ñu bëgg mooy bépp contact boo xamante ni réew Maroc am na ko ak réewum Allemagne ñu dakkandali ko ba jëmmi jamono ki nga xamante ni moo di Nasser Bourita di chef de la diplomatie bu réewum Maroc daal moo xëy tey jii bind chef de gouvernement ba di Saad ad-Din Al Ousmani ne ko dañoo bëgg sa ministère yi ministère yëpp nag bépp bu mën a doon rek lépp loo xamante ni daal laale na ak réewum Allemagne moo xam ambassadeur yaak réew maak ay organisation yu laale ak réewum Allemagne bu am ñoom benn rapport ba jëmmi jamono. Euh, ba loolu waral ministère de affaires étrangères ñoom it xëy dëggal boobee dogal di xam ne daal fi nekk nii bépp contact boo xamante ni amoon nañ ko ak ak ambassade bi di ambassadeur bu Allemagne teewal leen fële ci réew Maroc ñoom dakkal nañ ko. li ko waral nag mooy ay jafe-jafe daal ak i poñ yoo xamante ni ñoom ñaari réew yi dañ cee réeroo bokk na ci yooyu poñ décision bi nga xamante ni réewum Amérique wax na ko ne euh, réewum réewu Maroc lu bare bare ci fële ci Sahara ba moo ko moom am na fa souveraineté. réewum Allemagne nag dafa lankoon loole doon ko critiqué ñàkkoon ci ànd euh, am ndaje it moo xamante ni da ko doon dajee fële ca réewum Allemagne te Allemagne organisé woon ko ci janvier bi ñu génn ci janvier bële ci atum 2020 ñu janvier bële passé doon waxtaanee lu jëm ci naka lañ defaat ba jàmm am ca Libye ak libiral Libye daal amaat nekkaat benn état normal ne ñu kat boobee ndaje euh, ki nga xamante ni moo di réewum euh, Allemagne da cee invité wu loon kii muy réew nga xam ne moom mooy réew Maroc dañu dem ba réewum Birmanie moom ñetti manifestant nga daal ñoo xamante ni ñu ngi ci jafe-jafe gu mi yu métti ndax ay bal réel la leen militaire yi dóor ba actuellement ñu ngi ci diggante dund ak faatu médecin bi leen doon opéré nag ci benn hôpital bu mag a mag foofu moom moo xam ne leen ni mel réew mi di Birmanie nag ginnaaw ba nu ba fa militaire ya euh, dafay coup d'état tegg fa seen premier ministre bi boobu ba léegi nag daanaka bis bu nekk ay junni junni nit wàcc ci mbedd ma di wane seenu ñàkk ànd ak seenu ci boobu manifestation waaye nag armée bi ñaare day euh, soq ay balu kaw su seen kaw ay balu fetal dëggantaan sax léeg ak ak ay ndox yu tàng ak di jël njàpp ak di leen dóor ak yu ni mel ba daal ñett nit ñoo xamante ni ay bal réel lañ leen dóor ba ñu ngi ci diggante dund ak faatu nga xam ne lu ni mel moom benn médecin boo xamante ni moom moo leen doon opéré ci benn hôpital bu mag a mag bu nekk foofee ca réewum Birmanie. l' administration Joe Biden bu bees bi kat ñoom mbiru Mohammed Ben Salman mi kat boo mutul daanu ca def wax waxeet ndax ñoom gannaaw ba nga xam te ñu ngi doon sàkku réew ma sàkkoo jot ci réew ma moom Joe Biden ak i naataangoom fu ñu mës a toog ci télévision daal li ñu wax mooy suñ jotee ci réew mi daañu lijjanti mbiru Mohammed Ben Salman mi rawatina nag laale gi nga xam na ko ci mbiru Jamal Khashoggi ba ñu reyoon fële ci Turquie waaye daal fi mu nekk nii dafa mel ne ñoo soppi position nag seen seen seen ki nga xam te daal moo yor kàddu Maison Blanche daal fi mu nekk nii ni muy waxee mooy nañ seet ba jéem a arrangé mbir mi ndax kat réewum Arabie Saoudite réew mu mag la moo xamante nii yàgg naa nekk suñu allié yàgg nañoo jëflante eh, ci wàllum diplomatie wàllum militaire wàllum armement ak yeneen ak yeneen moo tax daal ba xool ñu lijjante mbir mi te jàmm am moom mooy li gën congrès ba nag am na ci ñu bëri bëri ñoo xam ne daal nee ñu loolu moom mënuñu ko dégg réew mu toll ni Amérique eh, bàyyi seen benn eh, seen benn allié kilifa ne def lu ko neex dara doo ko ci fekk te ñëpp xam na ne moom moo def jëf yu ñaaw ji muy rey Kamal Khashogi gi ak yeneen jëf yu ñaaw a ñaaw loole daal ñun ñii nekk ci congrès bi moom nekkul luñ mën a dégg waaye daal waa Maison Blanche ñoom seen gis-gis daal mooy daal xool nañu lijjantee dossier bi ba jàmm am te diggante ñaari réew yooyu di réewum Amérique ak réewum euh, Arabie Saoudite yéen ànd seen mbokk Xaadim Caam ci groupe bi di Mouhalim Info ci tëngum xibaar yi fi wasandi ci kàllaamay ko ci barama asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.